bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin seydina muhammad salallahu alayhi wasallam mbokk yi nga xam ne nu ni topp dini topp si Wadduha TV nu fas yéene partage ak yéen yoonu ñaan boo xam ne ñaanu xaajo la xaajo nag comme nanu koy waxee rek ñaar la la ngay mébét te bëgg yàlla jàppandalal la ko wala la ragal te nga bëgg suñu borom dàqal la ko eh, xaaju bi dangay nafila ñaari rakka rakk bu njëkk bi gannaaw fatiha nga def juróom ñaari alam masrah rakk ñaareel bi gannaaw fatiha nga def juróom ñaari isaja nasrullah boo sëlmalee si benn jotaay bi dangay def fatihatul kitab xadadu jaysun te mooy trois cent treize nga def trois cent treize fatihatul kitab soo paree ngay def laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min assalimin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina salimin nga def ko trois cent treize soo pare nga julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallama su fekkee mën nga ko def si siixatu salaatul fatiha nga def salaat nga def nga julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam trois cent treize fa tabarakala lii yoon la boo xam ne képp koo xam ne bëgg nga am loo deexanteeg borom bi da nga bëgg suñ boroom bi wuyul la sa lool ngay deexante ak bo soo si defee tawassul def si tabaruk fa la lépp loo si dog rek si kàttun yàlla suñ borom dana la ko defal naafilal ñaari rakka rakk bu njëkk bi gannaaw fatiha juróom ñaari almasra rak ñaareel bi gannaaw fatiha juróom ñaari isa ja nasrullah boo sëlmalee nga def fatihatul kitab 313 nga teg si laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min assalimin nga 313 nga teg si salatul fatiha 313 nga ñaan sa aajo borom bi fa tabarakallah lépp loo si dogu rek si kàttun yàlla suñu borom dina la ko defal kon nu ngi ñaan yal na yàlla barkeelal ko képp koo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo seen bokkul alxaaji Modou Cissé bu wadduha point org wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabil alamin